dafa am benn benn philosophe bu ñuy wax suqraat suqraatul xakim socraat mu ni nitu diine yi nañu daje ak philosophie ndax nun dañu ragalante ci sunu biir ndax guerre dañu ragalante ci sunu biir ndax guerre léegi am na ñoo xam ni ñoo gën a dangereux nit ci guerre te al anasirul arbaa nit dana geer juróom benn weer la mu yàq ngelaw mën na ñëw yàq ko ci benn waxtu nit mën na geer juróom benn weer ndox ñëw yàq ci benn waxtu lu ëpp la mu ci juróom benn weer safara suuf moo tax suquraat ni nañu daje xalaat ci bu ñu mënee saafara ñu lottal anasër yi lottal ndox mi lotal ngelaw li lottal safara si lotal suuf si ñu def ko ñu daje liggéey ci liggéey ba mu ngi mujj ci loxo Sidi Riyaaxi euh, famille am ñoo fexe moo du moo du sax sawaru euh, am na rekk lu mu ca bind wax ni bu sañoon texte ba kenn du ko arabisé dañ koy bàyyi ci luxa cosaanam luxa la abrindien waaye xóotu ca ndax tubaab yi sax tubaab yi sax euh, dañu wax ci at yi passé ni nekke jant bi

bu amul won conscience mani te set len bako yàlla waxe yonenti bi wa in min shay'in ja wa in min shay'in la wax yàlla neena amul lu amul conscience ne rus na dara di dund ci àdduna ta amul conscience rus na ko wa in min shay'in la wax lépp dugg wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu mu ni yonent bi yàgg ñi ànd ak yow yéen a xamul waaye man xam naa ndax lu nekk am na conscience te man rekk la la ñuy sàbbal jant baa nga ca xam nga tubaab yi itam dañuy yéex a nangu a ah, dañu bare tiital waaw am complexe temps yii yëpp ñu ngi ci bëgg a delloo cër bi ci loxo yàlla mu te leen tij ndax rëy rek rëy dañu rëy وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه لولا وقت مملك العناصر العناصر الأربعة من بما يدم تي بريزون بي يبالينا دوكيومون بي j'ai essayé de revoir ça mais dama mujjo daw parce que dañu am conscience waaw te دمو am luma ci massa dal dama mas di xam nga rek boo dee woy lu ne daa ci may tagg benn dex kii moo ko bind ah, Alaaji Malik Si si jinge moo bind xasida ba ma tagg dex gi ba ni ko yaa gën a yaru géej gi dootuma ko def mukk ah, mukk dañu mujj ni ma bu géej gi yaru woon comme dex dex du am bu géej yaru woon comme dex dex du am waaw ma xam ni dama juum waaw moo tax fan yooyu yëpp dama ma ci géej gi di sangu ragal mu won na ma